jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba Mbacké jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaarama maam Lamp Fall jërëjëf borom Touba Mbacké jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaarama maam Lamp Fall jërëjëfe borom Touba Mbakke jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam Lamp Fall jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam Lamp Fall jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëf borom Touba Mbacké jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaarama mam sulfaan borom kenn nga billahi yow kenn nga borom kenn nga Mbàkke war na ba ko kiim ku bëgg tekki ba ëllëg kennal ko war na dox dem ba Makka wax ak malaaka tabax fa ay jàkka yu rëy rëy taxul di Bàmba fanaani diiwaan di saytu Qur'aan day wane ay kéemaan yu rëy rëy taxul di Bàmba ku maam darax la dul moom yàlla bëggul moom mi bind ku dëddu bamba Cheikh Bamba kottu ku bañ ni mootum mbaa xol bu futu mbaa ni deena nuru nga yàlla jëfin duru yeneen ba doxinem deesu la xam deesu la miin yàlla nga ji nuru nit aw ma xam sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa am am amuma sëriñ bi raw nga sëriñ bi wey nga sëriñ bi dem nga jàll nga képp ne nag ci yàlla ne nag fa yàlla jeex nag ci yàlla ëpp nga bopp yow ba nga nekk yàlla fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow ak moom ma ne bu faane na reefu faane bu kenn fas man mi da ma joom yow rek yaa weet tamit ak weet ngir amuloo xeet fennati déedéet yow amuloo xeet yàlla di saw xeet doo mënati weet doo ñàkkati weet yéefar ni day rayim jullit ni doy roy ñu ba roy ak roy ngir tele Bamba mëneefu la roy mëneefu la roy tanga roy ak roy xalaasi danga roy marqaba Bamba ko la fi daa roy bayna ku dafe xiire banat la Bamba man jéemu ma te jéemu ma damay fexe bay ci tooli Bamba démb amoo maas tey ji amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga Bamba Bamba danoo yar banu am bu yar te dégg bu yar ñoo sant Bamba ñëpp a ngi nuy yeem ñëpp lay yeem lu bokk lay yeem yéemu nga Bamba ba muy yow bu dul ko nag yow ñu reere Bamba Cheikh Ibra Fall yow ndokku ba muy yow budul ko nag yow ñu réere baam amaana di la jeex ci téere ba jamono allah u yàlla noppi ci kii te yàlla Cheikh Ibra Fall doo julli nu may la sooroor ba mi mbar alal nga ko fële mi mbar nga daane ko wasal mi mbar nga daane ko yaru koo gis mu yab la day xaru yow weesu ngay mii mbër nga daane ko tabe te lii taxul yow nga yabe ku daanu nang ko fabi te jox ko gaa yu koy bësal Tuuba foo déggatee lambu ju gor taxu xamal ni senn gor bëggul toroxte mbaa telor yow weesu ngay solal sa yére daa di way waykat yi kañ la di la way ku daane yee mat a way ku wul mat la wayal borom seexi gànnaar rak yu Kajoor ñépp a naa la yaa di kenn si sikkatul ni yaa di góor ba nga defee lu kenn deful yàlla ngi naa la jërëjëf yeneen yi naa la jërëjëf sëriñ si naa la jërëjëf ndax nam yëpp yaa ko jël ku yàlla far di sa géwël yeneen yi far di say géwël sëriñ si faran di say géwal ku la wayul du la soqal ku la wayit gis ku la way ku la wayul gis way ndax am nga tànnee fi géwal yaa bind cey ak la jër cey lépp yaa gën a rëy kanaa cey la mu naa cey lépp menn mbër nga mu rëy yaa ëmb adduna ji yaa ëmb aljana jee ya ëmb kay ëmbeeki ëmbam lépp di wey borom Tuuba la dee fi wax barke yow mi yaa ko yor te budul ko naka ragal la dana wax ku dégg di naa noppi man te mat muy laqu mat la fesal yaa ngoog waaye dinaa wax ku dégg ni ax fu as njariñ masa nekk ak barke na fa tey ay xota des fépp yow bamba yaa di ñaay la dee fi mutu lépp tey ji ñu denc fi yow la dee fi wutu nekkatul makkaa ki faasa ki xaay sang bu dul yow yàlla ay yëf la yow nag dala sopp ba jëmmam la may bu yàlla doonu so nu wax ni yaa ko jël sang sa def sa doyofam ku nekk jël baara sa doom jee gën ku ni xaadima yónni ku nu ma sa yónni ka yónni woon muhammadul makkiyu moo del si waa di ahmadul bakkiyu cey li nga doon cey ki nga doon koo doon fu ñu dakk yàlla fekk yaa fa soonu cëy li nga doon cëy ki nga doon koo doon fu ñu dakk yàlla fekk yaa fa soonu borom Tuuba doo nit doo jinne doo malaaka te doo ka doo muusaaka sëriñ bi day mag daa ñëw dellu ñëw ñëwati yàllaa ko def mu def xeejam waaye kenn juru ko alhamdulillah indeem doon nañ muritu yu dëggaleem luy dal ko ak boroom tuuba ëllëg nanu dalim alhamdulillahi neem doon nañ murit yu dëggalim luy dal ko ak boroom tuuba ëllëg nanu dal sun lépp moo ñu ci doy ful dëddu moo ñu ci doy bis kulli jannati ba tuuba rekk gàddal na sunu xel gisaa nga kuy dox di wéy day seeti waaju ko doy te fekk waaja mu jëm yawmal qiyaama du ko tali képp ku gis ki nu gis ba noppi seeti kaneen demal ñu dem ba ñu fii fii rek a dal sunu xel sëriñ bi yéen a ngi nii tege na xëy daja bisi te dikk def ni ñu defi jëbbal ko seeni kurus day yokk diine di ful wërsëg di gudd danu faneem di fekk lor ak kër kër ak tar tar ku wedd dina mosum ku mat mu teeti ko ngir suukar la waaju ko musum mu teeti faw musal bul fale yow ku la xaseem ku fas ni xaadim sama sum la dëgg jógale ànd ak sa jëm ta dem lambar na del fi nu gisee yaa ngi jugee jënd yow say géej géej liggéey jub ku soobu say géej bu génnee xam ni doo ko ni bi day way di way takkan xamul fu mu jëm te kenn xamul fu mu yam jot ab na yam jafe na yam sëriñ bi ñun yaanu gën yaa gën ba gën kanu gën lii nangu nañu ko waaye yow dongu nañu ko nangul la ilaha illallah faal la ilaha illallah faal لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل فلا إله إلا الله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 fa la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sëriñ bi sunuy gaay a ngi ñoo ngi nii yaa ngi nii sarax nooti jàmm ak teraanga yu sunuy gaay a ngi ñoo ngi nii yaa ngi nii tawal taw bu dal xel bu too yal wow mbakke dangaa mel ni am ceebo gaa yëpp yow lañuy dox di xaaroo ko seenoo ko daw mbakke ki sebbee ngi lay woo fi sëbbeegule ñi ngi woote foo dem ñi ngi bëgg taw mbakke ñi am lëf dañoo bëgg ndol leen ci yow ñi ñàkkit dañoo bëgg am lëf ci yow mbakke sarax nos ndoole ndox ju jëfal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fës mbakke de ndab lan te du tilim lan te kët sa ndab lan raxas nu duy nu raxasa nuy mbég du yenu ay mbég feesale nuy mbég man nga defal nu nun ko nu yaakaar nu di la yaakaar faw akay xaar yaa ngoogu noo ngi nun ko nu yalwaan nu di la yalwaan faw akay xaar yaa ngoogu noo ngi mbakke musal nu ci wuttu lenn lu dul yow te sax lu dul yow buñ am te buñ xam kuy wut lu dul yow dalaa xamul yow te ku la xam yow du fa yëf yi mbakke na buntu ubbi ko tey boo xam ni dootu tëju buy tax ñu sant gërëm saytaane daw ba fabu ربي بما يفرح الأذان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ